da bëgg wax nit ñi sàmmi ñaari bët seeni bët na ngeen ko téye bu baax a baax bañ cee xool dara lu aay xool lépp lu yàlla bëggul ko xool ci bët rek te leen ko moytoo xool ci seeni bët bokk na ci xool yi araam xool awray jaambur awray bopp nañ caa wuute ba ndax jekki xool ko te amu ca xool ga dañ ko sib rek wala dafa waaye xool awray jaambur moom lu araam la kon loolu na koy moytu batay neena sa mbokkum julit nga di ko xool bët yu ñaaw xam ne moom nit ki di ko yu ñaaw déedéet sa mbokkum julit da ko wara xol bi yermane rek ni nga xam mom nga bëggal sa bop rek te mom nga bëgg ku la koy xolé del xolé nona sa mbokkum julit ni ko xam ab julit la waye dafa ñaaw julit ni nga wax fasiq ab kadjor day def lu aram te diko ko tu ko laq laqal sax akub yéefa ñoñu bu ñaaw bu ay ndax bu kacior ba mu jàjju deltu gannaaw bàyyi yu bon yi muy def te di ko fesal bu dee ba itam nga jamb ko won ko gannaaw ndax mu xat ba petit ko tuub ko ci lislaam xam kon moy moy katu yalla bi ak yéefar bi kum ci man don bokay jamb ak won gannaaw da nga ci jublu rek ngir yalla bëgg mu génn ci lam nek nekk bu ba mu tuub ñew ci lislaam bu kacior ba mu tuub tey rafetal ka maandu bokk na ci xool yi araam te xool kenn xoolub xeeb mbaa xoolub xuppaate mbaa xoolub gëddaate ni ñu mën a xeebaatee ak ni ñu mën a xuppaatee ci aw làmmiñ ak ni ñu mën a gëddaatee ci aw làmmiñ ba tey mënees ko kat ci bët waaw moo tax nga moytu say bët nag xool ca kenn xool yi deme noonu bépp photo boo xam ne rek bu ko kooku xoolee mën na koo jiñax ci mooy moo xam dañ koy génne ci cinéma moo xam dañ koy génne ci télé génne ci théâtre moo nañ ko génne ci koy gis ci wala mu gis ci mbedd yi ak fu mën doon rek daal bépp melaw mbaa bépp photo boo xam ne bu ko kooko xoolee man na koo yóbbu ci mooy rek araam na mu xool ko te na koy moytoo xool boo ne jàkk nag xool benn yoon rek daal di gaaw teggi xanaa bi nga nee jàkk rek xool daal di xam ne lu teggi fa saasa loolu kenn du ko bindal bàkkaar boo delluwaatee xoolaat nag foofu la ñuy tàmbalee bind bàkkaar ba ba tey araam na ci ab julit muy xool sikki mbokkum julitam ndax ku sañoon doo sikk kon nag bu yàlla tegee kenn sikk moo xam ci lay fis ci yaramam la mbaa la làqu di xool sikkam yooyee ndax noonu yàllaa ko ne melal bëgg na woon mel bokk na ci araam xool leetarub jaambur mbaa xeet ay sekkereem yoo xam ne ñu ko bind ci ab téere mbaa ab leetar mbaa aw kayit ak yu demee noonu sax téere bi muy jàngee nii ni ki mbaa beneen téere boo xam ne wóor na leen xool jàng ca bañu ko loola moom ayut waaye nag lépp loo xam ne nuru sekre nga xam ne wóorul ba xam bëgg na koo xamam déet nga jekki-jekki daal di koy xool rek loolu araam na mu ne am nañu yàlla bindee seeni bët aay nga xam ne buñ xoolee rek lañu xool day ayubu day alku day sikk noonu nag bu ko xamee ci boppam daa war di toog di téye ay bëtam bañ xool yëfi jaambur ba muy sikk ndax nee na ñu mel noonu bu xoolee yëfi jaambur ba mu am sikk moom moo war moo ko garanté moo war a fay jàmbur boobee loolee mu xool ba mu sikk képp koo xam ne bëtam aay na ba mu siiwee ko ñu xam ko dañ koy wax ne ko kon sa kër bañ a génn di xool yëfi jàmbur muy sikk ñu la koy fayloo